département bu Mbour toppoon ci Ousmane Tanor Dieng ci boobu lay kuréel mu bokk itam ci bureau politique ak comité exécutif national bu parti socialiste bokkoon itam ci comité préparatoire bi nga xam ne moom la ñu dénkoon wàccaayu lépp lu jëm ci euh, fàttaliku génnu àdduna Ousmane Tanor Dieng nga xam ngeen ni ajuma bi ñu weesu nekkoon fukki fan juróom euh, ci weeru juillet ci la ñu doon fàttaliku ñetti at ginnaaw bi mu làqoo moom Ousmane Tanor Dieng waa socialiste taxawaay bi nga xam ni amoon na ko loolu yëpp nag ñu war ci dikkat dikkaat itam ci taxawaay bi Ousmane Tanor Dieng amoon ci parti socialiste ci Sénégal waaye itam ci jamono en tant que nit doomu aadama euh, sëñ bi seen ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci demb ak tey ngir waxtaanee lii ma fi junj léegi. maa ngi lay fay soxna si Fatou Thiam Ngom. di la dalal fii ci maison du parti socialiste. di am mbégte euh, bi ma wooyee pour ma mën a wax. Euh, jëmale ko ci Ousmane Tanor Dieng. Euh, Ousmane Tanor Dieng suma lépp la woon wax naa ne léegi ci njëlbeen bi euh, fële ca mbuur ci foofu ñu yëngatu ci wàllu politique ñoo fa bokkoon nekk ma nekk son adjoint bu ko fa yàlla jëlee nag ci laa ko wuutu foofu kon yaakaar naa ne euh, war naa mën a wax ci moom maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf mbégte mi ñoo ko bokk alors dañuy tàmbalee ci parti socialiste naka la dundee ñetti at yi weesu euh, sans Ousmane Tanor Dieng. Euh, euh, ñetti at weesu ñetti at xam nga ñun fii le parti socialiste dafa nekk un parti organisé. amoon na ñi nga xam ne ñoo doon topp ci moom comme ni ma ko waxee donc ci ñooñu ki nga xam ne moo nekkoon seqoon rekk ci moom mooy soxna Aminata Mbengue Ndiaye euh, bi mbir mi amee it euh, moom moo ko wuutu wuutu ko nag ci wut ci wut wut euh, ci lu rafet rafet rafet li nga xam ne Ousmane doon na ko def mu ngi mu ngi def lépp pour def ko hmm. talal ñëpp loxo. Euh, di wax ak ñëpp déglu ñëpp euh, bu mu ñetti at yi daal yaakaar naa ne euh, yàlla def na ci jàmm parti baa ngi dox bu baax a baax a baax a baax ngi dox bu baax ndax soxna Aminta moo ko moo nekk ci bopp bi a ak waa secrétariat exécutif ànd ak waa bureau politique ak organisme de baas yi ñetti at yi daal ci man li ma ko gisee mu ngi mu ngi euh, parti baa ngi dox baa ngi dox parce que parti bi dox mooy parti nga xam ne day réunir kuréelam te ñun suñu bureau suñu suñu secrétariat exécutif dafay dafay tase régulièrement di wax ci li li jëmal parti bi kanam di wax ci Sénégal di wax sax li nga xam ne lii xëy ne bitim réew la concerné waaw donc parti bi ñetti at yi nga wax Euh, Aminata Mbengue Ndiaye ak équipe bi mu àndal moo ci ciy góorgóorlu bu baax a baax baax baax. yéegul leen benn yoon ne daal Ousmane Tanor Dieng làqu na. ci doxin weeg euh, dundinu parti bi. non xam nga Ousmane Tanor dafa ni nit ki nga xam ne pour nga remplacer ko dafa jafe. Euh, loolu yàlla moo ko mayoon waaye nag xam nga boo ko xoolee. Euh, euh, nit ki nit ñi nit ñi nga xam ne ñi ñoo fi nekkoon sunuy maam di maamaat bu ñu demee dañ leen a wutu àdduna continuer di dox donc àdduna dafay continuer di dox ki gan ci mbindeef gis yonent yàlla le prophète Mohammed mais bi mu déddoo waa Makka waa Médine dañoo jaaxle woon ne mbir mi nu muy demee waaye soo ko xoolee booba tey euh, islaam a ngi dox islam yi mu ngi dem fu ne donc kon bu ñu la déggee Ousmane Tanor Dieng waajaloon na ginnaawam. waajaloon na ginnaawam mooy parti bi defaroon na ko ba soo fa jógee dina am ku la mën a wutu di doxal jéem a doxal ni nga doon doxale waaw nit ki nag mënoo ko remplacer à cent pour cent ndax bokku leen style kenn ku ne dafa am stylum mais li ma mën a seede mooy. ki nekk ci bopp parti bi léegi euh, mu ngi def lépp lu mu mën pour que parti bi euh, continuer dox ni mu doon dox muy Aminata Mbengue Ndiaye alors ki mu fi wuutu di Ousmane Tanor Dieng euh, ba ko keroog ba ko Abdou Diouf joxee parti bi ba bi mu koy wàcc ci loxol Aminata Mbengue njaay ndax mën nga noo dellusil ci yorin ba mu ko yoree woon waaw xam nga da ko Abdou Diouf ko joxoon dafa demandé woon dafa proposé woon parti bi candidature Ousmane Tanor Dieng comme secrétaire premier secrétaire dans son premier temps moom mu jël présidence nekk président du parti donc Ousmane di doxal di exécuter sous l'autorité de Abdou Diouf mu dem ba benn jamono Abdou Diouf xam ne lii nga xam ne moo taxoon ma tànn Ousmane Dieng Ousmane Tanor Dieng euh, gis na ko ba doy na ko benn congrès euh, tase ñu no ñu ñu def ko secrétaire général du parti booba nag ba bi ko yàlla di jël euh, lu lu ay jéego yu bari la def ci kat ci bopp parti bi. booba la wax congrès sans débat. te congrès sans débat boobu c'est un c'est un slogan creux ça n'existait pas. ko amul. parce que bu ku xam parti socialiste xam nu muy préparer ay congrès am di nga xam ne congrès sans débat c'est impossible ba amul mënta am ndax bu fekkee ne dañu ne dañoo war a dem ci congrès dañuy def ay document document yooyu ñu yónni ko ci baas bi base bi mooy coordination yi département bu ne ñu yónni leen ko kuréel yi fa nekk foofu daje jàng ñu yóbbu ko ci union régionale union régionale bi mooy ci wàllu ci au niveau région union région ñooñu daje def tënk seen waxtaan tënk ni ñu gisee mbir mi ñu tënk ko ci benn rapport région yëpp def ko waaw bu ñu ñëwee nag ci congrès bi région bi nañu jox ko parole laaj ko lu mu lu mu xam ci mbir mi région bi na joxe position ñu seet quatorze régions yëpp position yi lii mooy seen position fan la fan la congrès sans débat am foofu amul loolu benn waay xam nañu ki ko waxoon rek loolu benn waay la c'est pas la peine ñu di ci dellu. mais xam nga ne moom si boppam xamoon na ne congrès du temps débat am fii ci parti socialiste ndax niñ koy préparé moo tax. waaw dafa am procédure préparation donc mënta am waaw. kon nekkul ku ñu imposé woon parti bi. moo nekkul ku ñu imposé parti bi parce que congrès moo ko fal te congrès bi mu koy laata fal région yi ñooy ñooy la ñu consulter. région bu ne wax ne ne man d'accord naa ko Ousmane Tanor jee nekk li ñu ñëw fii liir ko. publiquement am empêché wuñ ko c'est pas possible. lan nga jàppoon ni moo waral Abdou Diouf tànn ko wala ak ñeneen ñëpp tam ànd ci tànneef bi li taxoon mu tànn ko. parce que Abdou Diouf d'abord li tax da ko dekk tànn def ko conseiller diplomatique di ko seetlu seet ne nit ki am na qualité yi nga xam ne moo taxoon ma jël ko Abdou Diouf yokk euh, man ma kilém ay fonction def ko ministre d'État ministre des services et des affaires présidentielles maanaam lépp lu yëngatu ci biir présidence de la république bu président bi jàllee moom moo ko yë moo ko yël mu di ko liggéey liggéey ko liggéey bu am am solo mais mais Abdou Diouf Abdou Diouf li ta nekkee ku mel noonu xam ko jox ko ay ay ay liggéey bi nga xam ne dafay nekk dafay nekk ni nga ko soxle woon mais soo fekkee ne. fekkee ne te xam moom xam na ko ni mu ko xamee ñeneen ñi sax xamee wuñ ko noonu moo tax mu proposé ko au parti donc imposé wuñ ko defuñ ko voilà. alors naka la yore woon PS ci booba jamono. mais ni mu yore woon PS mooy mooy mooy di diisoog nit ñi di di di réunir instance yi instance su parti bi mooy euh, le à l'époque mooy bureau politique ah boo jógee ci bureau politique parce que congrès bi moo ci kaw. Hmm. nga dem ci ci ci ci ci bureau politique après bureau politique bi nga dem ci instance décentralisée yi nga dem ci région yi région yi seen bopp dañu am ay kuréel kuréel yooyu dem multiplier dem ci département yi département yi dem ci section ci ci ci commune commune yu ndaw yeeg commune commune rurale yeeg commune yooyu ah, loolu yëpp ay instance la te yooyu yëpp pour que xam ne parti mu ngi dox yooyu euh, instance yooyu daf leen doon daf leen doon dajale parmi temps et puis euh, pour euh, donc parti bi sous son règne Euh, fonctionner correctement et normalement. pourtant am na ñuy wax ne euh, xëy na jamono bi mu yoree parti bi élection yooyu dañu seetlu ne PS daf ci xaw a dellu ginnaaw bu baax a baax. Euh, non non non non xam nga parti bi nga xam ne day exercer pouvoir ak parti bi perte pouvoir. loolu c'est la c'est dans c'est normal. ñoo fi nekkoon di gérer dëkk bi di joxe njomb tànk. di joxe lu ne yàlla def alternance am et di mais li ñu mënoon dutuñ ko mën te nit ñi am ni ñi nga xam ne dañuy nekkoon ci suñu parti waaye du conviction moo leen fi teye yoon ñoom dañoo dem seen yoon te loolu boo ko xoolee même ci entre Ablaye Wade ak ak ak ki fi nekk léegi am na ay kàngam yi nekkoon ci parti démocratique sénégalais ñu ci bari boo dee xoolee léegi ñu ngi ci kii loolu la parti démocratique doole bi mu amoon boobu est-ce que am na ko léegi. est-ce que am na ko. est-ce que que bu fekkee ñoom Bamba Fall ak ñooñu ngay wax ñoom xalifa Sall ñoom ba ñu génnee ci parti socialiste ñu directement xalifa euh, Sall par exemple ak dem euh, demuñu directement dugg ci kii bi dugg ci nguur gi dañoo mer génn parti socialiste ndax yorin wi lañ doon. gaañ non c'est pas yorin bi. Ah. problème mu fi la Khalifa Sall li tax mu génn ci parti bi. Hmm. problème dafa posé ñu war dem. ci ay élection ñu ne waaw léegi est-ce que parti bi dafay dem ak moo boo defal boom wala dafay ànd ak beneen parti ñu def kuréel ñu def coalition am ne am ne en tout cas ñun bugguñu dem ànd ak Macky Sall bugg nañu ànd ak Macky Sall ñoom xalifa sal ñoom nee nañu bugguñu ànd ak Macky Sall loolu tax ñoom ñu dem seen yoon ñun ñu ànd ak Macky Sall parce que évolution monde bi moo moo tax ba benn parti ci boppam benn sa parti rek mënta demal boppam moo tax ñu ay ay ay ay ay coalition yi juddu mais ñoom bi ñu waxee ne bëgguñu dem ci coalition boobu mais ci benn coalition lañ dem dañoo dem ci beneen coalition donc mais c'est c'est ça la liberté liberté de choisir. mais ba tey ñu ngi woon ci opposition bi. waaw mais oui mais opposition bi c'est-à-dire mu ngi woon ci opposition bi ça c'est ça c'est leur problème. Mm. mais li li wóor bi wóor c'est que léegi benn benn parti kut kot mënta demal boppam. waaw ci jamonoy coalition lañ toll. voilà mais lu jiitu loolu ñoom daawuñu exiger wuñu woon congrès am renouvellement parti bi dundaat loola bokkoon na ci no i càkkuteef. non le parti dafa am dafa am euh, waxtu wi nga xam ne renouvellement dafa war a am. renoual mi koy jiitu dafa am ay ay ay ay ay ay yi nga xam ne da ko war a li da war a def avant le renouvellement la mooy nga jaay say carte ci kuréel yëpp ci suuf des organismes de base te loolu dafa am charte yi nga xam dañ ko teg benn structure balaa ngay mën a renouveler dafa am quota wu carte yi ñu la jox pour pourcentage bi nga xam ne moom ngay war a yor pour man ñu mën la autoriser fii am na fi une commission nationale du renouvellement Serigne Mbaye Thiam ministre Serigne Mbaye Thiam moo ko moo ko jiite euh, commission boobu bu renouvellement jégisee dafay dafay dafay siéger kuréel bu noppi nga saisir ko ne man noppi naa wala sama dossier man ci commission boobu laa bokk ñu xool dossier bi xool critères yi xool li ngeen jaay ci carte xool niñ ngeen ko nan ni ngeen koy jaayee su fekkee ne lépp aw na yoon commission bi joxe avis ne kuréel bii ñu saisir de bi ñu jàngatee dossier war naa mën a war nañ ko mën a autoriser mu renouveler mu joxe avis favorable avis favorable boobu dossier bi ñu indi ko fii ci comité exécutif c'est le comité exécutif qui autorise le renouvellement alors booba c'est la même chose rien n'a changé noonu la mën sa muy temps boobu muy temps bi la moo sa mel léegi nag man war mën naa gaaw mën naa ñàkk gaaw parce que su fekkee ne kuréel yu de base yi pare manoo dem congrès manoo dem manoo dem renouvellement looloo tax looloo expliqué li nga li nga wax léegi. ba tey ci yorinam ci parti bi de doon nañu dégg itam ñuy ŋàññi ne euh, parti bi daal dundatul ni waroon na dundee am na ñu nekk ci kaw ñoom lañ jox ay ndomba tànk ñu toog rek nekk ci donkaase gi la ca des moom toppatoowuñ ko. yooya tuuma ñu tegoon ci ndoddam. loolu amul ak ca kaw. loolu amul loolu amul amul loolu amul euh, ndomb tànk bu fekkee ne. Euh, partie bi euh, ci biir ci dans la coalition euh, fekkee ne ndombo tànk dafa am dafa am procédure bi nga xam ne bii dañ koy joxe mais ñun am nañu ci nguuru Macky Sall ñaari ministre wala ñetti ministre da ngi dégg am na yeneen kuréel am na yeneen responsabilité yi nga xam ne it am nañ ko waaye nag dangay xam ne coalition bu mag la du coalition APR PS seulement l'AFP ngi ci biir LDMPT mu ngi ci biir ak yeneen parti yooyu loolu nag bu amee mënoo wax ne euh, dañuy dañuy jël ku ku leen neex ñu kii ko loolu amul xam nga xam nga xam nga soxna si adduna bi mooy euh, te loolu démocratie ko moo moo ko moo ko clé euh, démocratie xam nga dafa ubbeeku waaye ni muy doxee en Afrique ñaareel soo ko xoolee euh, war nañ ko mën a rectifier ndànk tuuti euh, parce que nit ki dafa war de wax euh, ngir yàlla en âme et conscience mais man de boobu ba tey maa ngi ci parti bi waaye yi ngay wax dañ ne ñeen dañ ko def ni def loolu gisuma ko waaw man parti baa ngi dox xanaa fekkoon na loolu nga doon wax xanaa kon bu doon doon nommé xanaa kon man la ñuy nommé wala ci ñu ñu mel ni man la ñuy nommé ndax amul woon ku ma ko gën a jege voilà mais affaire bi du doxee noonu ni muy doxee mooy bu mbir mi bu fekkee ne ci ba coalition bi dafa am lu génn moom moom la tànn moom. te moom xam na nit ñi. mooy mooy mooy mooy mooy mooy jël ki nga xam ne kii moom defe na ne bu ko jëlee li li ñu li ñu sént ci moom dina ko mën a dina ko mën a def waaw. yeneen tuuma itam yi ñu ko tegoon ci kawam mooy moom moo xeex ñu mel ni Khalifa Sall euh, livrer leen état complot euh, ak ñoom ñu daal di dal ci seen kaw. loolu amul waaw. amul ndax problème mu Khalifa Sall fii la ma fekk. dama xëy ci suba ñu am bureau politique ma ñëwee fii ma fekk fi xale fees dell fii ci kii bureau politique xale lu mu fiy wut si te kenn convoqué xel Dakar yi. bari affaire bi jaaxal ba ma dugg bi ma duggee mbir jour boobu dañu waroon waxtaan entre autres ci est-ce que dañuy dem en coalition wala duñu dem en coalition alors euh, bi ñu duggee ba commencé entamer ordre du jour bi ñu dégg ay bruit ci biti Tanor moo wax xalifa Sall xalifa génnal nga wax xale yi nañu ñibbi. maa ngi ñooña xalifa lañ ñëwal. ay nit ak Bamba en tout cas xamu kan lañ mais en tout cas waa Dakar lañu su leen de Dakar mais Tanor moo ko wax ni génnal nga ne leen nañu génn nañu dem xalifa génn na. xam na waxtaan ak ñoom xaw lu wax ak ñoom mu dellu si toog Tanor a nga toog nii mu ngi nii man maa ngi toog nii maa ngi dendoo nag benn waay bi ñuy wax peut-être xam ngeen ko Pierre Sané te jóge ci organisme international ñoo dendoon ñu toog ba ci kanam continuer liggéey bi ga bruit bi gën a bari xale yi gi soow Ousmane ne Ousmane Tanor ne Khalifa génnal nga ne xale yi nañ dem xalifa génn ba ma faal topp lu ñu wax xele yi je n'en sais ndax fekkuma ko maa ngoon ci biir bi loolu pa passé ñu continuer suñu liggéey kile rek ñu ñu dégg ñu ñu ñu dóor ay xeer. xalifa ak Bamba dellusi nañ ci saal bi. Euh, xalifa dellusi na waaye Bamba gisuma ko. Ah. alors xalifa dellusi na toog xale yi commencé di kaas di sànni ay xeer di sànni ay xeer gis nga porte bi nga xam ne bureau bureau bi fa de defoon dañ ko dañ ko kii suñu taab yi ñu ko ñu teg ci kaw yàq leen. Hmm. fi ma toogoon man. maag Pierre Sané boobu Pierre Sané man ngeen ko laaj. benn pierre moo benn benn xeer moo jógee na le gaañ ko fii muy muy nàcc ci suma devant moi. am na benn xeer bi nga xam ne fii la ma jaar am na peut-être ni ma nekk séeréer moo tax ba ba dallu ma pangolu séeréer yi ñoo ñoo ma sauvé. voilà alors bu loolu amee kero dañu dañu dañu dañu police ñëw xam ma ndax xaw ma ndax police ñëw na xaw ma ñëw mais mais ñun daal dañu génne ci. ci ci man tanoor dafa naa xalifa ci la bokk ak beneen ñeneen camarade dañu fi ñuy defee réunion bi fale dañ fa jóge jaar ci ngandu réunion kiiwu congrès bi génne noonu pour mën a jot sunu oto dem sunu yoon Tanor waxul deful deful plainte deful dara ñu def réunion ne waa mbir mi nu ngeen ko gisee ñii ne waaw nañ leen il faut ñu porter plainte ñii ne duñ porter plainte ñu ne ko dañ leen kan ngeen di porter plainte mais xam nga avec euh, le développement de l'audiovisuel maintenant avec les histoires de des images qu'on prend de gauche euh, bi mu yàggee yàgg na def na ay mois la sax mm. ci la ci la ci la parti bi porte plainte contre X x boobu nag li tax ñu identifier leen mooy image yu ñu ci image yooyu lañ jël ci la ñu jëlee ci la ñu kile Bamba Fall parti bi nag boobu waroon ngeen fa ñëw ba xool dégâts yi ñu fa def. gisoon nañ ko. waaw ci mais mais bi gis ngeen dégâts boobu moo tax ci foofu lañu sukkandikoo pour pour euh, pour. Euh, xaw ma dañ leen a ndax xaw ma en tout cas man daal problème bi foofu la jóge waaw mais Tanor defu ci dara. booba jamono lan moo nekkoon relation tanoor xalifa Bamba Fall. relation bu baax. amul woon ñagas ñagas dégg non non en tout cas xaw ma ama ama connaissance xaw ma. aw xaw woon jàmbat. non non non non mosuma moom mu jàmbat ko. mosuma gis en public mu jàmbat ko mosuma gis en privé mu jàmbat ay relation yu yu xaw a clé ak ñoom amul waaw. ñàkk demuk PS ci élection présidentielle bi itam indi na coow. Eh, ñu bari ŋàññi nañ ko ci amul candidat dem na ci élection yi mais euh, président Macky Sall lañ investir loolu itam ñu bari mere nañ ko ci non c'est un réalisme politique mm. euh, xam nga dem élection pour dem élection ça sert soo demee élection te xam nga kon euh, tu n'es pas encore réunir conditions yi la permettre nga dem élection ça sert à rien ça sert à rien. mais c'était quand même inédit lu toll ni parti socialiste élection présidentielle. ci Sénégal amul candidat déggoo la wax. mais loolu base bi comprendre luñ ko. waaye war nañ ko comprendre nañ ko wax yéen itam journaliste war ngeen ko wax c'est parce que problème bi c'était pas ça mooy ils ont fait une coalition ñu ne. plusieurs partis politiques mais Tanor était au départ ñu ne ñu ne léegi euh, ñun ñi nga xam ne ñoo def coalition bu ñu demee ba deuxième tour ku jiitu ñun ñëpp ñu jàppale ko yàlla def président Macky Sall jiitu ñoom itam engagement bi ñu ñu ñu kii ko ñu respecté ko loolooy loolooy dox ba fi may wax ak yow hmm. d'accord est que lu jiitu loolu amoon na waxtaan ak base bi. est-ce que diisoo dëgg-dëgg amoon na. xam nga parti socialiste du beneen parti hier rek euh, président mu ngi doon wax ne parce qu'il nous a reçu hier président di doon wax ne mais mais mais parti socialiste c'est des gens orga c'est parti organisé. nee na melul ni ñun ñoom melul ñu seen parti ñoom. waaw hmm. ah, ñoom wu wuñu. waaw structuré alors donc ñun le lu lu li nga xam ne lii soxal na parti bi dañ ciy waxtaan dañ ciy waxtaan ba déggoo ci ñu koy war a exécuter ñu door ko exécuter. waaw alors seen émission démb ak tey ngeen di teewlu ba tey ci réew mi FM ñuy waxtaanee Ousmane Tanor euh, ndem si yàlla mi jiite woon parti socialiste jiite di ci dalal Niadiar seen bokk ci parti bi euh, jiite itam tey union des coordination PS du département du Mbour wuutu ci boobule euh, toogu itam kii di Ousmane Tanor Dieng ñi ngi toll ci yoreen wi mu yoroon parti socialiste keroog ba ko Abdou Diouf tegee ci ay loxoom alors lan nga jàpp ne nag ci yorin woowu Ousmane Tanor Dieng yoroon parti bi am na ci loo xam ne nangu nga ni xëy na waroon na ni doxalee te doxaleewul ni wala amul lépp jaar na yoon ci sa gis-gis. ci waaw ci man hmm. lépp jaar na yoon euh, tubaab dafa wax ne aucune œuvre n'est parfaite une œuvre humaine n'est parfaite il y a peut-être certains manquements. su hmm. euh, mënta ñàkk mais li ma mën a wax li ëpp ci. initiative yi ma jël initiative yooyu dañoo jëmale parti bi kanam waaw initiative yu baax lañu voilà. yan nga ñu mën a limal ci yooyu initiative loo xam ne. Eh non mais initiative lu ñu mën a mooy mooy mooy mooy yaa ngi ci suuf yaa ngi ci bopp parti bi euh, réunion yi parti bi war a def nga di ko def euh, collaboration bi nga war a am ak nit ñi nga am ko euh, am une capacité d'écoute ak yu mel noonu. loolu mooy li ma la bëgg a wax mooy mooy ma donc euh, loolu daal la mën a jàpp ci nga li nga ma laaj. alors ñu wax ci secousses yi nga xam ne ñu ngi ko doon junj léegi yëngu-yëngu yi amoon euh, ci biir euh, parti bi yooyu Ousmane Tanor Dieng personnellement naka nga gis ne la ko dundee est-ce que lu ko affecté woon la est-ce que lu xawoon a diis ci moom la walla daal defu ko woon muy dara. Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane Tanor Dieng le président Ousmane Tanor Dieng était un homme formidable. Euh, il avait un euh, bi nga xam ne bii pour nga mën a lire ci sa ci jéem il est affecté par tel ou tel événement mënoo ko ma. sérénité daal n'importe quelle situation. mais man benn bes laaj naa ko naa ko Ousmane man dima jaaxal ci yow gis naa gaañ presse yu bari di la critiquer ñii di la wax lii ñii di la wax te du ma du ma la xool ba gis loolu ci sa kanam loolu loolu wax naa ko ko man waaw moom nag yàlla moo ko moo ko koon noonu nit ki nga xam ne kii mënoo xam ne euh, lii neex na ko wala lii naqara na ko moom daal il est au service de son parti et au service de l'État de son pays. toujours serein. au-delà du parti euh, union des coordination PS bu departement bu mbuur moo ko jiite woon en tant que doomu Mbour ngeeñeen euh, euh, particulièrement foofa itam ban taxawaay la fa la amoon ca Mbour taxawaay bu am solo taxawaay bu am solo man maa ko doon suppléer foofu daanaka euh, l'aspect pratique maa ko fa yoroon parce que compte son son programme national ay missions yu bari maa ko fa doon dox structure yi ko doon presque fonctionner sous son impulsion sous son autorité mais foofu ba fi may wax ak yow ni ñoom euh, sunu camarades yi dañ koy dañ koy dañ koy rafetlu nekk ni mu yore woon partie bi foofu di ko di ko dañ ko ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax mm. waaw. socialement ban taxawaay la fa amoon ndax ku wax PS wax social. mais oui mais mooy justement social social moom social bi mooy. yaa ngi ci boppu kuréel kuréel bi ay nit a ca nekk nit ñu ñii mën nañoo yàlla mën na leen mën nañoo am ndog ñii mën nañoo am ay ay difficultés et cetera moom il était à l'écoute et chaque fois qu'il était saisi donc problème de ce genre moom da ci doon def li mu waaw ñoom waa Mbour même démb ñu ko ñoom jooy nañ ko ci ci wàll boobu boobu jooy na ko parce que moom man mi nga xam ne maa ko wutu moom li mu mënoon mënuma ko parce que fonction yi moo amoon awuma ko du dëgg mais ñoom waa Mbuur taxawul na leen lool lool lool lool lool demam bi ñoom xam nañu ne euh, ba tey ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy mitit def na daal lu tax ñu yëg ne nekkatu fi waaw def na lu tax ñu yëg nekk ñu ñëw nag ci moom euh, Ousmane Tanor Dieng euh, jaar-jaaram ci wàllu politique euh, nan nga ñu ko mën a xëy na nittaliwaatee pour ndaw ñi nga xam ne jeune jeune politique yi ak même ñi nga xamante ne xëy na tey Ousmane Tanor Dieng dégg lañ nar a am ci moom ndax wax ji moom day des waaye bu ñu ñëwoon Ousmane Tanor Dieng jaar-jaaram ci politique lan la doon lay doon. Tanor Dieng jaar-jaaram ci politique dafa jàng ba pare. dafa jàng école primaire bu Guéña am entrée en sixième ñu yóbbu ko collège technique bu Saint-Louis mu jàng fa ñu jóge fa ñëw fii la Delafosse mu génn comme géomètre mais tout en étant géomètre il s'est inscrit à l'université de Dakar à faculté de droit voilà amee maîtrise am ak diplôme d'études supérieures def ENAM section diplomatie bi mu génnee ENAM yaakaar ni jaar na tuuti au ministère des affaires étrangères mais intelligence am les qualités yu montré à ces ces ces ces ces ces ces ministres parmi lesquels il le professeur Assane Seck que Dieu ait son âme ñoo ko ñoo ko ñoo ko gis ràññee ko ba noonu lañ ko yóbboo à la présidence de la république mu dem présidence de la république dans un premier temps il était euh, il kon moom tëbul rek politique. non non tëbul politique. donc jóge na affaires étrangères dem dem présidence de la république d' abord nekk diplomate. il s'occupe de on appelait diplo kat dafa am diplo deux moom il était dans un premier diplo un diplo le diplôme 2 bi diplôme 1 bi nekkoon euh, un certain Barrot qui par la suite a été envoyé comme ambassadeur en Italie mu passé diplôme 2 diplôme 1 ci la ko Abdou Diouf ràññee nome ko directeur de cabinet mu jóge fa mu nommé ko ministre d'État ministre des services et affaire présidentielles ci ci anam yooyu nag la Abdou Diouf ràññee ko seet ko seetaat ko xam ko te moom ci boppam mu xam ne moom yàgg na ci parti bi te moom mu ngi commencé di di dem mag ci la ko inséré ci parti bi et bi mu ko inséré ci parti yi Ousmane région de euh, département de Mbour la jógee dafa dellu ci département de Mbour waxtaan ak waa Mbour y a commune la ba bas non douze communes non seize communes excusez-moi seize communes waxtaan ak camarades yi nekk foofu yëpp ci parti bi ñooñu ànd ak moom. def ko responsable politique au département bi d' abord section de Nguéniène mu jël ko coordination Mbour ci boppam dafa dafa dafa am structure hmm. dafa am coordination départementale ak euh, coordination communale de mbuur bu njëkk ak coordination communale de Joal Fadiouth ñett yooyu boo ko day euh, départemental bi maag moom ñoo fa nekkoon moo nekkoon secrétaire général bi mu nekk premier adjoint bi euh, ci Mbour commune Moussa Ndoye moo fa nekkoon Euh, Joal euh, Paul Ndong moo fa nekkoon Paul Ndong ñu boole yooyu yëpp muy secrétaire ñu ñu ñu élire ko secrétaire na de l'union des coordinations de mu ñëw fii ci ci boobu Abdou juuf moo ko ne demal nga à la base d' abord avant ñëwee ci kii bi nag ba fa la jógee Abdou Diouf proposé ko premier secrétaire. ñu constitué ci la nekk premier secrétaire Abdou juuf nekk président du parti. ñu dawal ba kii la ba nga xam ne Diouf xam ne kii kat ba ma ko joxee léegi parti bi dina ko mën a yor Abdou Diouf daal di kii ñu changement de statut yi mu nekk secrétaire général du parti. d'accord voilà loolu mooy jaar-jaaram ci wàllu politique noonu itam la duggee ci parti socialiste comme ni ma ko waxee sànq moom kon tëbul politique mm-hmm. def politique itam xëy na nekkul woon bébé tam. Euh, waruma xaw ma lu nekkoon ci boppam xaw ma ndax nekkoon na mais en tout cas def na ko en tout cas à la fin def na ko waaw comme man man par exemple euh, au début, j'étais pas fait pour la politique. J'ai fait ma licence en sciences économiques à Dakar. Euh, booba seen maîtrise yi seen yi amul loolu dafa yàgg après ba dem Paris def la banque si nekk daan nga école bancaire ñëw fii ñu ne ma aux élex aux affaires ma ma yàgg ci lool avant may dugg ci politique bi bi ma duggee ci politique bi dama dem ba njaga ñaaw fi ma dëkk xeex foofu ba ba jël li fa nekkoon door a dellu si nag door ñëw mbuur et cetera et cetera c'est non alors euh, Ousmane Tanor Dieng ni mu defee politique ba keroog mu ci génn noo ko gisee buñ ko méngalee ak tey nii politique di doxee. ah ba mu defee politique bu génn en tout cas li ma mën wax ci Ousmane Tanor Dieng daal mooy euh, euh, amoon na le profile à l'emploi bon e c'était un homme extrêmement intelligent qui apprenait vite doon jàng bi donc. loolu daal laa mën a wax ci moom. dàgg sant geeg waxante lu ñaaw gi. non non non loolu xamu ko noonu xamu ko euh, du dugg ci affaire détail yooyu moom problème de détail c'était pas son problème du def yooyu waaw. léegi homme d'état bi Ousmane Tanor Dieng loolu moom àddina yëpp nangul nañ ko ko c'était un homme d'état euh, nettali ñu itam homme d'état bi mu nekkoon. non non homme d'état bi nga ne ko yaa ma ko gën a xam parce que yéen boo journaliste. waaw waay te yow la laaj ngay tontu. yaa ma ko gën a xam moom c'était un homme d'état mooy bi nga xam ne l'homme d'état c'est l'homme bi nga xam ne c'est les intérêts de l'état qui priment dans tout ce qu'il fait il ne se préoccupe pas des intérêts particuliers c'est les les intérêts de l'état bii moo intérêt état bi moo ko gën a soxal. ci la nekkoon. Euh, hier rek président bi dañu doon recevoir. et savoir le parti socialiste du département de Mbour man maa ngi fa jógee vers presque minuit mais moom wax wax ci nañ ci moom li nga xam ne lii lu rafet la parce que nee na Ousmane Tanor Dieng c'était un grand homme d'État euh, mu ne dafa ma doon wax ne man lii laa pensé wa lii laa la proposé lii laa wax lii mooy suma xalaat yow nag yaa amee décision bi mm-hmm. su ma la waxee suma ma joxee li ma xalaat ba pare yow yaay seet ndax ni nga koy utiliser su fekkee bëgg nga ko utiliser nga utiliser ko nga soo ko bëggalee nga nga kële mais man li ma ba problème posé dama lay wax nii laa ko gisee lii mooy suma xalaat nit ku nit nit ku dëgg la woon dafa dëggu ku dëggu honnête euh, euh, te te c'était pas un calculateur c'était pas un calculateur c'était un vrai sérère euh, de de chez nous Voilà. Donc, euh, c'était un grand homme d'État. Et ça, il y a eu un consensus au plan mondial. Tous les témoignages, yi nga xam ne def nañ ko ci à propos de Ousmane Tanor au sujet de Ousmane ñëpp d'accord nañ ci ne c'était un un très grand homme d'État un, un homme a des vertus qui bi nga xam ne bii moom mbiru état du ci boole du ko booleeg dara waaw Euh, wax nañu sànq ci mbiram li xewoon euh, digganteem ak ñoom xalifa Sall ak ñooñu ba keroog parti bi di jël dogalu euh, génne leen ci ci mbir yi foofa wane na fa grandeur ni ko waxee ak ni ko ñeneen aussi nanguwe ndax am na yeneen situation yoo xam ni xëy na parti bi traversé na ko fekk moom moo ko yor mu amee ci taxawaay woo xam ni itam wu ràññeeku la ay jafe-jafe du mën a ñàkk mm. parce que bi mu nekkee ci ci mbir mi nekk ak euh, ci wetu Abdou Diouf te yàlla may ko pouvoir bu am solo dafa amoon ñu bari ñu ñu ko doon topp di àndoon ak moom ba sax di wax na ay xaritam lañu mais bi situation bi changé ñi ci gën a bari dañu dem. dañu dañu meroon ndax. non non xaw ma lu tax mais ñoom daal quitté nañu parti bi xam nga loolu man mënoon na koo mënoon man mënoon moom la moom la mooy laa la moom laa la doon wax léegi. loolu loolu dafa dafa dafa dafa dafa jafe-jafe bi nga xam ne bi soo ko bu jotee nit ki euh, mën na am beneen beneen taxawaay wala kile mais moom moom boo ko doo ko gis ba ba xam loolu ci moom il est toujours serein lu ko naq dégg lu ko neex déedéet c'est un homme waaw ñu ñëw nag ci nit ki euh, wax nañu homme politique bi wax nañu homme d'état bi mais nit ki am na ku ma nettali digganteem ak wayjur wu ji wayjuram wu jigéen mu nekkoon doom ju nangul wayjuram mais jëflanteem ak nit ñi ay mbokkam camarade de yi ngeen nekkoon loolu ci mën a dénk. Ah, yow wax nañu ni itam xaritam nga woon lool. non maag moom euh, xarit lañu woon xarit bi nga xam ne bi dañ ko dañ ko dañ ko baate ci respect mutuel. parti bee leen boole. parti bee ñu boole waaye maa ko xawoon a mag tuuti. Euh, mais mu doon mu amoon ci man un respect on avait un des respect réciproque moom daal moom daal suñu diggante bi daal amul euh, amul woon euh, kële te mooy ci parti bi ñi nga xam ne seqaloon na ko ci ak ak waa parti bi noonu loolu loolu la ak ñoom mooy respect respect considération wala am ñoom waaw Ousmane du wax kenn lu bon Ousmane du tooñ kenn Ousmane euh, euh, ñëpp la joxoon cër ñëpp la joxoon respect waaw ci ñi ma ci li ma xam ci ay relation waaw même sa propre famille ses frères et ses sœurs loolu la amaloon ak ñoom avait respect mutuel. Euh, nit ku nekk am nga ay mbir yoo xam ni ñeneen peut-être war nañ ko mun a jël mu nekk. royukaay ci ponk yu bari tey ay qualité Ousmane Tanor Dieng boo ko doon lim ci tënk lan nga jàpp ne ndaw ñi war nañ ko jàngee ci moom ñu fii di lim ay qualité Ousmane Tanor Dieng moo tax ma ni tënk li ma ci tënk bi mooy rek c'était d'abord Ousmane Tanor Dieng nit ku baax la woon nit ku yaatu la woon nit ku nit ku amoon euh, bëggoon bëggoon bëggoon bëggoon euh, d'abord waajuram bëggoon ay camarades yi nga bokkal ki bëggoon ñoo bokkaloon coalition de manière générale Ousmane était un homme disponible waaw ku la woon ku xam ne euh, sa respecté woon doomu adama parti socialiste nag ba mu génnee àdduna ba léegi ñu koy fàttaliku 15 juillet bu jot ni ñu koy defee ak président euh, Senghor euh, saa yu 20 décembre jotee naka la parti bi di organiser loolu ajuma bi passé ngeen ko doon amal lan ngeen jublu ci loolu. Euh, weer bu weer année bi jot dañuy def dañuy célébrer l' anniversaire de son décès décès son rappel à mais euh, xam nga euh, nit ki dafay sabablu yàlla mooy dogal il se trouve que de ces deux dernières années là dafa amoon tiis bi fi nekkoon mooy la Covid alors ci contexte boobu moo tax ñu modifier organisation bi cette année la at bii nga xam ne ji aji aji bi passé comme noonu nga wax anniversaire bi ay lecture de Coran lañ ci wax am lecture de Coran en ngéeñeen ci kër gi d'abord këram kër papaam ensuite fi daara nekk foofu fépp ko daara nekk recensé nañ ko ñooñu dañ wàcc Kamiel la mosquée omarienne la mosquée de Mermoz ci Kamiel Touba yaakaar naa ne am na lu fa war a def alors fépp fi nga xam ne fii Ousmane Tanor jëng doon na fa yëngu ci wàllu wallu euh, wàllu islam wala wallu wàllu wàllu fi mu doon jullee wala feneen chaque année dañ fay wàcce kaamir ci soxnaam yi aussi ci kaamir muy Fann muy bi domicile bi nekk Dakar waaw noonu daal lañ bi yoon wàcce kaamir daal mooy essentiel lu anniversaire loolu dañ ko def pour ñaanal ko yàlla yërëm ko yërëm ko ba euh, firdawsi nekk fi nga xam ne mooy dëkkuwaayam abadan firdawsi du xam nga firdawsi waaw <laughs> yàlla nañu fa dem ñun ñëpp si bokk na ci àjjana yi gën a yi ah gën a yi gën a kawe ah yàlla nañu fa dem ñun ñëpp <laughs> alors euh, bu weesoo wàccee kaamil yi est-ce que waajal ngeen comme ni ngeen koy defee ci président Senghor revisiter ses œuvres dellusiwaat ci dundam dellusiwaat ci ay mbiram mais li tax cette année mënuñu ko def mooy contexte bi euh, les organisations organisation bi ñu def dañuy tenir compte ci contexte bi hmm. dama la wax ni doon nañu def beaucoup activité hmm. mais euh, am li nga xam ne dafa ñëw mu ñu di ko wax Covid 19 te Covid 19 ba tey dégg jóge gu fi kon nag contexte boobu ci lañ nekk ba moo tax ñu allégé. Euh, programme programme bi defe ko ni ma la ko waxee léegi. Hmm. voilà alors ñu bàyyi la nga nga tënk euh, ci Ousmane Tanor Dieng loo xam ni xëy na nit ñi xamuñu ko woon ci moom te yow mi nekkoon xaritam nekkoon camarade de nga xam ko ci moom mën ñu koo wax. Euh, ah, mais mais li ma xam li ma xam ci moom li ma xamoon ci moom daal mooy mooy nit ki nga xam ne ki nitu ku sincérité ku am sincérité nit ku sincère ci ay jëflante ak nit te Ousmane Tanor Dieng lu mu la joxoon ci sa ba ba ki ñu koy waxati sa. lu lu ndey jooram joxe càmmoñam du ko xam. waaw du ko xam. amoon na sutura. sutura amoon na bu doy amoon na sutura bu doy yaatu woon na bu baax. te euh, euh, loolu daal laa xam ci moom waaw. lan nga fàttaliku ci moom mbir mu particulier lu lu extraordinaire moo xam lu reelu la wala leneen la loo dund ak moom personnellement nga xam ni xëy na bokk na ci li ngay li sa xel di dem boo ko xalaatee moom. boo ko mooy benn bés. xam nga de temps en temps damay dem France benn bés ma ne te chaque fois. bu ma demee këram bu ñu ma annoncé rek day wàcc ñëw quelle que soit l'heure quelle que këram fii dakaar këram Dakar këram fii kër Fann wala fale maa ngi ci maa ngi ci salon bi rek du ñëw mais benn bés ma war a dem France waxuma ko ko nga xam fan la ko déggee. mu wax ma ma il paraît que da nga bëgg dem France suba ma ne ko waaw maa ngi ko doon waaj de. mu ne ma na nga jaar kër ga tey à vingt heures ou vingt une mm-hmm. Dakar vingt ma ñëw bi ma ñëwee ñu annoncé ma wàccul mm. alors wàccul doomam la yónnee ci man mm. ba doom ji Pape Biram la tudd Pape Biram alors loolu jaaxal ma lool mais ma jógee fi dem Paris mais ma jógee fi dem Paris dellu si je suis le 5 ou le 6 avril ma jàng journaux yi ñu ne ma waaw fête de l'indépendance le 14 avril Tanor dafa tardé woon ñëw ba ci yoon wi ñu ñu téye ko parce que dafa tardé commencé woon nañu et cetera ma gis ci journaux yi. le avril. alors man je crois que je suis venu le 5 ou le 6 ma jàng jël sama téléphone woo mais yaal mbin yaal mbin ci séeréer mooy c'est une appellation bi nga xam ne bii c'est des c'est des c'est des gens qui son très proches qui qui yaal mbin mooy borom kër. Mm-hmm. nañ ko yaal mbin mais man demal li ma liir ci kayit yi ci journaux yi loolu nan la man amee mu ne Ousmane Tanor dafa tardé ci affaire mu mu ne ma mu ne ma. yàlla il raconte raconte des histoires waxtu wi may wax ak yow maa ngi clinique su à la clinique clinique kii à ñaari fan la ci teg mu dem Paris ba tey dellu si bi mu dellu mooy xam faatoo mooy kii donc ñoo fa ñëwee këram xam naa ne xel dafa nekkoon ci ay difficultés taxul mënul wàcc mais dafa nekkoon nit ki nga xam ne il est tellement discret que même lu ko lu ko jot doo ko mën a xam. doo ko mën a xam même s'il souffre. parce que il a il s'est acquitté il a li mu waroon a def ci parti bi da ko doon liggéey juste juste jusqu'au à son départ mos. mos suñu kenn mosut xaraat ne. am na am nga am na feebar bi bi feebar bi graawee na nii et cetera et cetera voilà loolu moo marqué ci moom. d'accord nouvelle génnuk àddunaam naka ngeen na naka la dalee seen kaw naka ngeen ko dundee. mais mais mais avec stupéfaction avec euh, surprise parce que man bi mu nekkee France dañ doon wax téléphone doon téléphone parce que moom dafa nekkoon France moo ko waa këram su ma wooyee su ma jot ko walla su ma ko jotulee soxna cinéma dafa jóg léegi pour defi defi sport. voilà su ma ko wooyee mu ne ma euh, dafa am daal li mu wax noonu laa di def di def de benn bés ma ma woote téléphone am répondre tout deux jours après la ñu dégg ne gaañu na voilà comme ça comme ça mu diis lool mu diis trop ci man ak euh, euh, les membres du parti socialiste et les sénégalais de manière générale. bett na leen. bett na ñëpp la bett. ñëpp la bett parce que kenn mën na ko woon a gis boo xam ne loolu am na ci moom ndax discrétion xam naa ne il souffrait mais buggu ko woon nit ñi parce que je ne peux pas comprendre réunion yi ñu doon def fépp mu doon ci ñëw te mënoo xam ne waa ji lii mu ngi mu ngi mu ngi lii jot dal na ko ba am gravité bi te du ko wone ko wone kon 4 avril boobu ñëwul woon sax. non non ñëwul non non ñëwul il était l'hôpital il était à la clinique. voilà nee ma nee na ma il raconte des histoires au moment où je te parle je suis à la clinique yal na ko yàlla yërëm yeesal yërmande ci moom te xaare ko aljana firdaw si ni nga ko ñaanalee ñun ñëpp ñu daje fa moom. kenn bañ a manqué Ñajaar Sène la ñu doon dalal ci démb ak tey muy secrétaire général union des coordinations PS bu département bu mbuur bokk ci bureau politique ak comité exécutif national bu parti socialiste ak comité préparatoire bi nga xam ni moo doon waajal anniversaire wu génnu àdduna Ousmane Tanor Dieng ñu doon ko amal àjjuma bu ñu weesu ñu ko doon waxtaanee moom Ousmane Tanor Dieng waxtaanee itam jaar-jaaram ci wàllu politique ak yorin mi mu yoroon parti socialiste li mu fi bàyyi ci ginnaawam itam euh, dikk nanu ci yaakaar naa ne moom la ñu dooree ñu ngi lay gërëm bu baax baax Euh, sëñ bi seen amoon mbégte mu rëy a rëy dalal la ci waxtaan wi. soxna si maa ngi lay gërëm di la sant ndax su fekkee ne dama ma invité pour ma wax ci Ousmane Tanor Dieng xaw na diis waaye euh, am naa ci mbégte parce que sénégalais ci bari xam nañu suma rapport yi ma amoon ak Ousmane Tanor kon su fekkee ne da nga ma invité ma wax ci mbir moomu. waaw lu neex na ma lool te maa ngi lay gërëm di la sant waaw. jërëjëf yëg nañu émotion émotion bi vers la fin mais géré nga ko comme euh, ni mu ko daan defee avec discrétion waaye yëg nañu ko ndax booy wax ci ku la jege noonu ak ni mu demee euh, faw mu mu am lu mu def ci yow ñu ngi ñaan yàlla gën a féexal seen xol euh, gën leen taxawu ci dem gi nga xam ne dem na ko ñax-ñàkk dafa metti jërëjëf mbokk yi yéen ñi doon déglu jërëjëf itam jaabu jàll mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig dajee beneen dimanche i allah ñu waxtaane leneen ak keneen émission bi mun ngeen ko réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñëw yendoog jàmm